voilà Mamadou Ndiaye j'entends rien ci oreillette bi pour ah. décompte beeg ñoom seen donc je disais euh, dañu koy njëkkee ak euh, li nga xamante ni moo jëm ci euh, réseaux sociaux un monde d'insultes euh, oui. et de violence verbale mhm. am na sociologue boo xamante ni waxtaan nga ak moom pour mu indi ay leeral ci lii ñu tuddee phénomène lu lu am solo la élage maa ngi lay euh, nuyuwaat di nuyu euh, internautes yeeg téléspectateurs yi ni nga ko waxee noonu la euh, amee mooy mbirum violence yi nga xam ne dañ ko seetlu fi mu ne ci réseaux sociaux yi du Sénégal rek partout dans le monde fi mu ne nii nag ñu ci bari seen ay borom xam-xam ñi ngi ci def ab taxaw seetlu maanaam euh, di xool di réfléchir nan la ñu mën a euh, éradiquer violence yi nga xam ne dañ ko seetlu virtuel la ci ñenn ñi mais surtout ñoo xamante ni mën na jógee ci euh, réseau yi dem physiquement donc loolu yëpp mën nañ ko jéem a alerter waxtaan nañoo benn sociologue di Ibrahima Mbeng xam-xamam màcc ci mu joxe ci explication yoo xamante ni dina am solo pour téléspectateurs yi mais surtout internautes yi nga xam ni baaxoo nañ di suivre li xew ci biir internet bi. pour définir un peu la violence dans les dans le monde virtuel un peu les les problèmes et les solutions la la première cause mooy internet dafay euh, dafay favoriser ce qu'on appelle l'anonymat l'anonymat c'est-à-dire la personne peut avoir euh, des des profils différents euh, am benn protection de son intégrité physique et cetera donc dafay garanti benn benn anonymat donc euh, anonymat boobu mooy ko yóbbu si benn liberté de ton benn benn capacité à à répliquer à à répondre à à d'autres types de de violences même des violences étatiques donc ce qui amène un peu l'effet boomerang la la violence circulaire la la la réactivité. deuxième euh, euh, propriété de de mooy dafay am da lay permettre accès direct au grand public l'accès direct parce que souvent. euh, l'accès au grand public était réservé à des catégories de personnes, etc. Et dans la société normale, il y avait des censeurs, il avait euh, euh, des, des, un de validation, etc. Donc, avec Internet, il y a eu quoi. Donc, chacun a accès au grand public et chacun a la possibilité de parler directement au grand public. Et lolo, dafay indi benn euh, crise des censeurs souvent les les censeurs ñooy ñi ëpp problème. ils voient un peu une autorité des échappés et donc ce monde là est différent du donc où il y a des censeurs où il y a des censures où ñu bëgg dégg rek nañu dégg et cetera donc affaire bi am benn explosion un de type de discours et boo xam ne day. te population globale da si jot troisième élément qui est fondamental aussi mooy l'accès aux archives aux informations donc euh, tout public a maintenant accès à toutes les informations, à toutes les, archives, à la capacité de, de remonter l'information, ou tog information bi, de frères comme nous comprenons, soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, etc. Et donc, euh, le pouvoir est, est, transféré au grand public. Donc aujourd'hui, n'importe quelle personne peut être acteur de, la transformation de la société. Pour valoriser beaucoup.

ñun baaxoo nañ ci émission bi saa su ne di leen gën a gindi surtout ci heure bi nga xam ne maire yeeg paa yi ñu ngi ci heure añ bi wala di xaar añ bi baax na ci toujours ci mbirum violence boobu ci la ñuy des ndaxte am na ci ñoo xamante ni tamit ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu leen di suivre mais surtout dañuy dalal nit ñi ku déglu seen ay vidéo dañuy gis ni ay conseils yu am solo la ñu tànn ci kenn rek ndaxte mbirum violence la toujours euh, wax ji fi muy jógee wala fi muy euh, daanu see mooy ñu dal dafa am solo yoro mi mi ngi ci TikTok bi bari na koy suivre. yoro baa boo meree di nga dal ànd ak sa sago sama yaay ni ma ma nettali la dafa am benn waaju xëyoon rek dem jamono yooyu téléphone amul plus de vingt ans waa ji xëy rek daal di dellusi si mu agsi fa guddi fekk waa kër gépp fatu mu jubal ci néeg jabar ji bi mu jubee bunt bi dégg jabar ji wax ak ko góor foofu fiiraa ngi daal koy dugg mu jël benn flèche lu bëgg rey waa fekk fa mu tukki woon la benn mag bu ko fa waxoon ni que saaboo boo meree rek noppi doon ñi da nga ànd ak dal ba sa njiite ñëwewaat xelam dem ci loolu mu teg flèche bi mais duggul ci néeg jabar ji de dafa dem tëdd ci ëtt ba fanaan fa ba suba bi waa kër gi xëyee gis ko ñépp kontaan ñu organise benn feet jabar jaa ngi toog waaye am na ku góor ku toog ci côtéem waa ji di ko xool noonu jabar ji jóg jàpp ci loxo xale bu góor bi ñëw présenté ko ni ko kii sa doom la nuyu ko démb ci guddi rek bi ñu nekkee ci néeg bi waxtaan maa ngi koy wax say wax waa ji xam ni ba muy tukki bàyyiwul na jabaram mu ëmboon ñaari weer mu xalaat ni démb su duggoon ci néeg bi doomam lay rey mu jooy lii nag njàngat bu rëy la ndax kaso yi ngeen gis mu fees dell ñu ci mer bañ a ànd ak seen sago moo leen fa dugal sama yaay ni ma yoro mer léegi faj léegi ré mi ngi noonu am na solo mbirum violence tey li ñuy waxtaanee noonu la mais toujours dañuy segg ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi di dalal nit ñi gis nañ message yëpp Twitter Facebook Instagram ci suñu plateforme yëpp hashtag bi suñu net la miin ngeen heure bi nga xamante ni ci ngeen di ko joxe seen ay commentaires interactivité la wax nañ ko social TV la saa su ne eh, dañuy partager seen ay message eh, message yëpp jot nañ ko gis ne am na ko ñu tagee ci vidéo la xewoon fële ca Pikine ci week bi donc eh, li wër alentouru arène national bi lu doy waar la ba fi mu ne nii ñëpp a ngi partager vidéo bi ñu dégtal leen ko donc di alerter encore une fois autorité yi ngir ñu gën a renforcer sécurité bi bor boobu. xoolal lii xoolal lii ful yi xoolal lii lii lañuy dund par dimanche lii bu yeboo bu dimanche jotatee ñaan naa leen bu kenn duggati pikin ñu yor oto toog leen fi ngeen dëkk ku ci dugg pikin lii ngay daj lii ay xeer lañu yore ay jaasi ay goon mu ngi nii xaar leen mu wiir beneen côté bi jox leen lu doy waar la ci week-end bi ñu génn gannaaw làmb jafa amoon ay surtout ñu ci bari dañ profito euh, di ci agressé donc baax nañu alerter autorités yi ndax saa su ne ci émission bi ñun liñ lépp loo nga xam ne dañ ko fi alerter euh, solution dina ci am ci kanam dinañ ci ñëw euh, ak beneen solution boo xam ne am nañ ko ci action citoyenne ñu dellu rek Gambie bari ci ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ñuy suivre partout dans le monde surtout waa Gambie nag actuellement nii xam nga ñi ñu ngi ko jàpp le 4 4 décembre fi mu nii nag Henri Gomes bi mooy star ci réseaux sociaux yi fële ca Gambie. kon nag coolo jakoo laka moo fa yóbbu boppam bu mu sonal nit ñi réew mi réew mi kenn du ko kañamal neexe rek ca kaw ca kanam rek tera leen tera leen pati bi moom la ñoo puuj paaj ni daxini sipat sipa réew mi dafa neex te dafa rupuj puuj. encore dimanche boobu di ala ànd ak du ne yow rupuj paaj lal. mi ngi noonu Henri Gomez ñëpp ay partagé vidéo am TikTok Facebook Instagram partout actuellement nii mooy star bi moo yor buzz bi foofu ca Gambie di waajal seen élection présidentielle ci 4 euh, décembre bi moom Henri Gomez mi nga xam nekkoon na fa so ministre des sports moom foofu ca euh, Gambie. action citoyenne la tëjee ndaxte ci émission bi la bokk semaine bi ñu génn lancé woon nañ alerte autorité euh, ngir autorité yi mais surtout aussi internet yi mooy école primaire ba nekk fële ca benn dëkk foofu ca région bu fële ca Podor foo xamante ni eh, ndaw ñi dañoo amoon jafe-jafe table banc eh, foofu surtout classe yi nga xam ne ñuy def ay CI CP Euh, am na ak collecte boo xam ne internet yi initié initié woon nañ ko euh, ngir ut ci saafara euh, Ninthié mii nga xamante ni di Mamadou Diakhaté di enseignant ñëpp xam ko ci réseaux sociaux yi dajale li nga xamante ni moom la am ak li internet yi am ngir ñu amal leen ay table banc lu am solo la résultat baa ngi nii mujj nañu am table banc yoo xamante ni nii la société bi nii lañ ko soxlawee ndaw ñi duñu xaar benn autorité ku ci nekk rek fexe nooy mën a defaree saw gox lu am solo la ca. pour mën leen dimbali ci xale yi. ci noonu ñu daal di jël image yi dugal ko ci internet bi di wut ay nit yu ñu dimbali pour ñu mën a am table banc pour xale yi daanaka matutoon sax matutoon mais comme que dañoo yàgg def collecte de fonds yàgg def loo xam ne dañuy fexe am ay mécanisme pour mën a dimbali école yi fexe nañu xool ak suñuy pexe nan lañu war a mën a def ba amal xale yooyu nga xam ne ñoom ñoo dëkk war xoox nekk benn école bu tudd ceeb nu ñu amee ay table banc ci noonu am nañu vingt table yoo xam ne daanaka pare na fi mu toll nii nag oto rek la ut yu leen ko yóbbul incha allah xam naa xale yi seen toogaay boobu ci suuf incha allah bu defee ay fan yu néew incha allah danañ toog ci ay table ba mën a jàng ci condition yu baax. jaajëf am na solo. nit ci encouragé jeunes yi hashtag bi sunu net la envoyé leen seen alerte information mais surtout euh, li nga xamante action citoyenne la ñun dañuy partagé lépp ci émission li xew ci biir internet bi jaajëfal suñu sponsor euh, Jili CSB bu leen continuer leen commenter ci suñu plateforme yi Facebook live YouTube live Instagram live mais surtout jaajëfal euh, gagnant semaine bi ñu génn demoon nañ ci Jili CSB jël seen ay lot téléphone am na ñu ku ñëw fii jël si ci lii nga xamante ni Jili moo ko fiy joxe di ko jaajëfal nii la continuer leen commentaire surtout bàyyiwaat ba suba euh, kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen di gis euh, seen ginnaaw euh, Pape Sam woon leen image bi vite fait gars yi continuer commentaire Facebook YouTube live même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité commentaire ñu choisir ci ay not daal leen yóbbu ci jili CSB jaajëfal leen El Hadj boo nekkee boo paree ma delloo la antenne bi ci beneen studio bi lii lañ leen indiloon indil ko internet yi ci heure bu baax bi fekk ci beneen heure bu baax bi demande aux internautes ñu bañ a fàtte soutenir euh, Penda Sy moom mooy Miss euh, mooy représenter Sénégal euh, Miss World mhm. Porto Rico au mois de décembre mën nañ ko soutenir Facebook Instagram Twitter parce que compétition bu mag la dafay dem yóbbu drapeau bu Sénégal mhm. ça il faudra le rappeler tous les jours aux internautes merci Mamadou Ndiaye et à demain à demain inchallah